Union nationale des mareyeurs du Sénégal amal tournée état bu Touba nag bureau local ba ñoo leen dalal ci salle de conférence bu mairie bu Touba diagnostic bi ñu amal seen secteur bi bokk na ci jën ni mu ñàkkee boole kook jafe am nag ay gàllankoor ci marché bi pour ñu sukkandikoo ci Modou Cissé moom mooy président de mareyeurs de Touba. waa xam nga jafe-jafe bi dafa yaatu xañ na mën naa jëkke Touba waaye général Sénégal gépp la ndax sunu liggéey gis nañ ci ay jafe yu métti jën bi li ñu jëndee seer na et puis koy jaayee tamit njaayin wi métti na moo tax nag ñu ko seq moo war tey na def wër nañ fépp Sénégal def nañ ci tefes yi dem nañ ci marché yi tey nag fii lañ ñëwoon Touba fekk fi marié Touba yi ñuy waxtaan waxtaan bi weesuwut lu dul ñu trouvé solution fexe ba jën bi ñu di ko am ci anam woo xamante ne bi du métti du ko soxna yi ñu ko seqal tamit ñu di leen ko jox ci anam yoo xam du métti population bi di ci jot ci anam yoo xam ne du métti dinu biral sax ni Touba marché bu mag la dañ ko war a taxaw à part Dakar fii si mim réew kenn dàqu leen approvisionné wu waaye nag accompagnement ba dafa des moo taxit ma ngay interpellé ministre bi yor wàllu pêche bi ngir mu mën a bàyyi xel dëkk bii di Touba Touba day marché boo xam ne du marché bu ndaw Touba Dakar rek lañ ko fi tëkkaleel ci ci ci ci ci marché bu dee yaboy sax Touba moo ci man ndakaa kon moo tax ma ne état faaw mu bàyyi xel Touba surtout ma ne la dañ ko soxla fii suñu dëkk bi mu ñëw xool na nemmeeku suñu jafe-jafe jàpp ci ndax secteur la boo xamante ne bii vraiment li muy li muy li muy contribuer ci ci ci ci ci Sénégal gisuma beneen secteur boo ko boo boo ko fi man débat yi bokk na si liñ si gën a waxtaanee ñàkkum jën gu tar gi loolee nag ña ngay dut baaraam bateau ramasseur yi nga xamante ni ñoo tey réew mi depuis mën nañu wax ni sax fanweeri at ba mool yi mëntuñ gis seen bopp si jën bi waaye nag ña ngay amani yaakaar si début de solution yi nga xamante ni nguur gu bees gi mi ngi koy jël ñu leen nag encouragé ngir ñu mën see dem ba sori. xam nga jën jën jën kenn ku ne xam na ne fan année yu ñu génn jën jafe na lool d'accord fi mu toll nii sax euh, régime bi fi nekk nii bu bees bi vraiment gis nañ ne ñoom jël nañ ay solution yoo xamante ne bi ay engagement yoo xamante ne bi dal na suñu xel waaye tamit dañ dañ leen ci gën a soññ surtout madame la ministre moom xam na secteur bi te euh, bëgg nañ jafe-jafe yi ci nekk daal mu saafaraal na ko ndax gis nañ ne jën fi mu jógee nii métti na te ginnaaw ñoom ñëw nañ bees te wan wax nañu ne bateau yi nga xam te ñoo nekk ci géej gi di indi ay jafe-jafe pour arrêter leen loolu ñu ngi leen ci encouragé et ñu ngi leen ci soññi ndax kenn ku ne xam na ne jën li koy jafeel loolu ci la bokk te population bi jën niñ koy jëfandikoo. jég jéggi na day jéggi day goo xam ne suñ ci bàyyee bato yi jën day gën a seer waaw loolu loolu tax moo tax nag madame la ministre vraiment ñoo koy fàttali di ko soññi engagement bi mu jël ci ci bateau yi mu mu mu mu mu baral ko baral koo xamante ne bii du yàgg dara. jën bi tefes gi sensé. yeneen problème secteur u pêche bi bokk na ci concurrence déloyale bi am ci biir gox-goxaan yi. ndax nemmeeku nanu ni kat bu dul bateau yi sax waaye ay entreprise ñooy ñëw ubbi seen barab di jaay jën te loolee baaxul si secteur bi ñoo mareyeurs tamit ñoo ngi koy ñaawlu Pape Ibrahima jaw mooy président union nationale des mareyeurs du Sénégal. li nga xam ne mooy mareyeurs yi parce que concurrence doyale bi dafa bari euh, ku ne xam ne ne marocains yi ñu ngi fiy ñëw di ñu fekk suñu marché yi mauritaniens yi ñu ngi fiy ñëw di ñu fekk suñu marché yi même chinois yi sax actuellement dëkk boo dem ñu ngi fa ubbi ay boutiques yi poisson di ñu ba tax na marché yi ñun ñi nga xam ne ñooy distribution bi duñ demee ci marché yi duñ fi fekk kenn parce que marché yi nit ñi dañoo daw ñu calculer ne xool nañ liggéey bi mais liggéey bi mi ngi changé tey it bi muy changé mooy concurrence déloyale bi te képp koo xam ne nii tey euh, sénégalais nga am nga carte mareyeur carte mareyeur bi daf la war a protéger ci ñaar parce que koo xam ne étranger nga amoo droit jaay jën Sénégal parce que carte mareyeur boobu ku amul nationalité sénégalais waru ko am te ñun ñu gis ne suñu réew mi léegi dafa mel ni vraiment étranger yi dañu bëgg ñëw nangu ko suñu loxo au détriment de mareyeurs kon donc loolu bokk na ci tournée yi nga xam ne ñu ngi ko doon def fexe aussi marché yi nga xam ne ñun ci lañ nekk di ci liggéey ñu càmbaraat liggéey bi xool nu mu gën a baaxee ba nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñoo ne ci marché yi ak jigéen ñi di jënd si jënd nañ mën a fexe ba am consommation bu yomb. waxtaan yu am solo si diggante ñii di mareyeur yi. si seen biir bare na jafe-jafe yu ñu fa soulever waxtaane secteur bi li ko tàmbalee bopp bi ba si genn gi te dinañ jël lépp nag jébbal ko kilifa yu compétent yi ngir nag secteur bi jaare fa dox ba faaw.